jërë ngeen jëf mbokk internet di ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ginnaaw bi ñu leen nuyoo mbokk yi ziar leen ñaanal leen jàmm bu baax a baax tey ko ci yéen Medina TV di leen jaajafal ngir ànd bi ngeen di ànd ak moom ci lépp loo xamante ne actualité la ngeen mën koo am à temps réel ci réew mi waaye ci àdduna wërngal këpp kon dañ koy door tey ak waxtaan boo xamante ne dinañ ko sekk ak kenn ci ki nga xamante ne borom xam-xam la buñ ko waxee euh, sëñ Mor lay wuyoo buñ nee sëñ Mor taalibe Sëriñ Babacar Sy yaakaar naa ne kenn du ko présenté ci ëttu làmb ndax miin ngeen ko ci peggu Modou Xarañ Lo waaye liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy def ci làmb waaye ci lépp loo xamante ne jafe-jafe la doomu aadama rek mu ciy taxaw bu baax a baax dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu yaara maa ngi ba ma sant yàlla ju seen bi sant mm-hmm. yokk leeram te tànn si barkeem di nuyu waa Sénégal ñëpp di baal ak ñëpp di baal ak ñëpp mm-hmm. di nuyu waa Parcelles Assainies 1 surtout quartier déggoo bi ma juddu unité 7 di leen ziar baax di leen jox seen wàccuwaay mm-hmm. ba yàlla dogal tey moom makkat Malika ñëw tux si Malika du nuyu waa Malika ñëpp di leen ziar baax a baax mm-hmm. di nuyu di nuyu sa cameraman bi mm-hmm. ayca ginnaaw ba ñu la nuyoo dañ naan rek naka koor gi ku ne xam na ne ñu ngi ci koor mm-hmm. weeru koor gi eh, daanaka lépp day changé jot bi du bëri waaye waxtaan bi ñu bëgg a sàkku nga nangul ñu ko itam ñu la baax a baax mm-hmm. eh, di la a àq di la baal àq ci weeru koor gi itam naka koor gi rek waaw ñu lay baal waaw koor gi moom macha allah koor gi moom xam nga koor moom weeru koor weer bu neex la mm-hmm. weeru day tax suñu liggéey day yomb tax suñu liggéey day gaaw parce que ngeen amee ay gande wàññi ko baax a baax dañuy mën a profité waaye baax di baal di baal Mm-hmm. waaw France waa Italie di wax nan ma xaar si koor jeexee maa ngi waaj pour France incha allah. maa ngi international est que doo ñu yóbbaale tamit. incha allah bu <laughs> am na solo sëñ Mor ginaaw bi ñu la nuyoo euh, xam-xam la ñuy waxtaanee waaye ñu bëri dañuy gis sëñ Mor ci facetu làmb di ko gis ci muy indi ay mbër rawatina roi des arènes Modou Lo waaye dañoo dañoo dañoo dañoo bëgg rek nga leeralal ñuy seetaan ne sëñ Mor ni mu mënee ci làmb macha allah noonu la mënee fépp ci li nga xamante ne moom mooy wàllu ñaan. waaw li may liggéey si ñaan xam nga làmb mooy milieu bu mooy milieu coow. soo bëggee siiw moo gën a gaaw. man li ma def si métier si wàllu ñaan mën na vingt ans. soo nekkee si métier deux mille deux ba deux mille vingt quatre loolu ay yu bëri la. làmb nag mu gën a ndaw si lu may liggéey ñaan leen laas mu mooy jigéen bu mënut am doom. rek laa mënut a saafara. weesu loolu lépp dama koy saafara. lu tax mu am ay clients Europe parce que man may liggéey nekk Europe ñoo parce que man du ma fen du wur du ma bëggul ñax doomu aadama lépp lu ma mën dem na la mën naa ko lu ma mënul la mënuma ko parce loolu mooy àdduna parce nit mënoo mën lépp jigéen bu toog ay at mënut am borom kër suñu déggee moom borom kër si 45 jours mhm. góor gu toog ay at mënut am soxna suñu déggee même chose mu am soxna mhm. moo mooy nekk Europe am jafe-jafe kayit suñu jokkee incha allah rabi bu ñu jubóoyee si kàddu mar ak may kii benn seul mara bi ñaan mudu mooy leen wax baal ba gis mhm. soogee fay mhm. tey amul kenn comme tey muy maaraay bu ñu laaj xaalis da ngay laaj xaalis par suur liggéeyal mar mhm. ak may liggéeyal ne la say sarax soo gisee li ma la wax nga soog maa fay xam loolu yombul yombul Mm-hmm. ayca muy lu am am solo loo xam ne yaa ngi koy def euh, waaye sëñ moor bu ñu ko ràññeewee làmb moo tax yaa ngi koy wax léegi làmb mooy gën a gaaw a siiwal nit mm-hmm. euh, mu nekk loo xamante ne itam def nga ci liggéey bu am am solo jëflante nga ak mbër yu bëree bëri waaye saa su nekk ñi ngay jëflanteel yàlla suñu borom euh, mi ngi def rek lépp loo xamante ne ndam la ñu ngi koy am mm-hmm. waaw làmb moom sama domaine la parce que làmb dama si gan xëccoo la may wax suñu borom gën a foor te danga koo mën waaw xëccoo <laughs> mën a xëccoo yor man xëccoo man yor saako fara yor dul komaal mhm. ma jàpp ni képp ku ma xëccoo damaa la mën mhm. donte ko dama yóbbu ay mbër yu daan waaye bariwul mhm. su fekkee def nga si làmb maximum trois ans ni ñu xam la nga teg la trois ans ñaari def nga sam ñu ni gis muy ñaaw bu ndaw contre Zarko ak mbër bi dëkk euh, ñaari Ahmed Dem mbër bi dëkk caaro yi ñàkk jariñu waaw mhm. muy ñaar noonu geste ay mhm. ma koy sant yàlla baax mhm. man ne la su ma amee bis événement lay nekk ndax sëriñ yu bari ñu bëgg ma daanu parce que loolu yàlla suñu borom dogal <laughs> xool ko ku ma ñaabu ndaw bi xam ne làq sa fa bari ma sant ko yàlla nag bu baax day tax su ma ñëwaatee arrondissement loo xam ne ñëw naa te dinaa ñëwaatee benn facette eh, ñu gis ne sëñ Mor saa yu indi mbër coow li day bëri sëriñ bu nekk nag day indi mbër arène nationale mais mm-hmm. bu sëñ Mor waree ñëw. Mm-hmm. mbër mi lu mu ndaw ndaw coow li day bëri. Mm-hmm. lu tax waaw sama doy moo toll foofu lu naan ku yokkul yaa wàññi. man damaa ñëw si lam ak beneen facette. ma kenn mu ne une semaine facette bopp une semaine si bopp. ñëw li may def ma am si gëm-gëm. man la. ma am yëpp si am laa ko amee nag. man xam nga kat ma war a xas làmb wax naa ko mille fois wante man. waruma xas làmb war a xarab lam man war maa xarab lam ndax lam def na ma lu ne mm-hmm. lam ma tax moom ay soxna mm-hmm. lam ma tax moom ay kër lam tax moom la moo tax ma a xarab lam mm-hmm. ku ma xam rek lam ba tax lam ba tax nga xam moom ku man damaa a jëlloo njukkal lam te xam ne am na ñoo xam ñoo ma gis ci métier foofu def na si ay ati ati at amaana yàlla lu ma defal yàlla defal leen ko tey mënoo ñëw islam ne diw diw tuddoo sëñ Mor soo nee sëñ boo nee un deux sëñ Mor nga si tegloo rek dina sant yàlla kenn du ko dindi déedéet voilà am na solo rawatina nag sa diggante ak Modou Lo avant muy bëri ak Boy Niang ak Ama Baldé dama ñëwoon seet si la nga ne ma Modou Lo day daan Ama Baldé day daan Boy Niang kenn du ko dindi te macha allah ni nga ko waxee woon yaakaar naa ne dara dañu ci ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. waaye bii paa mu mel ne coow li bëri na. ndax ginnaaw bi mu génnee foofu dañ doon wax Modou day bàyyi Modou day noppalu dina ñëwaat du ñëwaat ñu jékki-jékki mm-hmm. dégg combat boo xamante ne kenn xaaru ko woon ci digganteem ak Siteu. Mm-hmm. bi nga déggee combat boobu sëñ Mor. waaw combat boobu bu sax am naa lu ma lu ma Modou Lo suma nit la mhm. suma lépp la mhm. moom cofeel si moom taal rek tax Siteu ñu ko jege di suma xarit mhm. muy DG bu Siteu ak Aline Seck ak Seck foofu lu ñaaw xaju fa man dama doon ñaanal Siteu fee combat am yàlla dugal tey mu rëbb rek Modou Lo te foofu famille juddu fa mënuma see wax dara ndax jëm yooyu Mm-hmm. wante Modou Lo moom li ma mën a si gàttal mooy roi des arènes daf koy bàyyi wale ah. barke Cheikh Tidiane. su bëree wëkk. roi des da koy bàyyi waale. da koy bàyyi waale loolu kay kon moom mooy Modou day daan Siteu. xam nga mënu moom xam naa ne moom. da koy bàyyi nag sëñ Mor. si kàttan yàlla moom comme ñi gars xaar ñii ay Modou day ñii fii day kii da koy daan fii wala day may couronne beeg yi. day bàyyi wala roi des nan xool Modou Lo si génération am jël roi des arènes kus na benn sorte nga sama am si ndam te deuxième sorte na koo ñàkk mhm. mooy loolu rek moo si bëreegum à part jigéen ñi mhm. am si ñaar victoire mhm. ñi sees ñëpp ku ne da ngay ñëw am benn bis soog ñu daal la Balla Gaye ba mujjee sigin Tapha Tine la fi daan ba mujjee Eumeu Sène daan ko Eumeu Sène ba mujjee même chose ñu nag roi bi dañ koy da ngeen koy bàyyiwaale kon mën nañ ne Modou Lo daal maanaam dëgër na dëgëraay boo xam ne kenn mënatu koo daan jàpp nañu moom mu moom Modou Lo dégg mu ne la mais ci mais ci digganteem ak Siteu comme ni nga ko waxee kenn xaaru ko woon mu nekk combat boo xam ne bett na nañu bëri mm-hmm. euh, tey ji yow bi nga déggee combat boobu ñu taxawal ko lan nga xalaat xalaat nga ne lu mën a nekk la wala lu ñu warul woon def la parce que ñu bëri ñi ngi naan famille da ciy dugg mën na am lu mu yàq ñii ne business la ñii ne mën na defar version yi bëri na waaw combat nag lu tax muy am benn dimension bi day dépendre si ñaari mbër yi mm-hmm. parce que nag bu toggee kenn du ko joxel dépense mm-hmm. Siteu bu toggee kenn ko joxel dépense te ay 100 millions kër gu mu dugg danga koy jël comme ko dëkk bi day dëgër dëgër moom bu na joxee cent mille nga jël ko waxtu naa ñu la cent millions cent vingt millions day dépendre si communication ñaari mbër yi mooy tax combat bi am fu mu egg famille jaxasoo te ma gëm Siteu ak yaram gëm naa du dépassé làmb la benn tàkkusaan la day jeex parce que deret bu xasee ba jaxasoo xasa day jeex te Modou Lo ak Siteu nag seen deret jaxasoo nan mhm. mu neex ak mu naqadi nit ñi nag ku si wax lu ñaaw wala nga def lu ñaaw bu commencé passé yaa si des mhm. te ñu du si lekk dara mhm. bu si lekkee cent mille deux cent mille si lekk après mu jeex ñoom ñoo si lekk seen million mhm. kon nañ ko rafetal ñu def si war yàlla may ndam mu loo mu jeex am na solo waaye man ba tey dafa am loo xam ne de dama ne day ñuul ci soow mi mm-hmm. muy ñaari mbër yi ay xarit lañ ñaari mbër dafa am loo xam ne dañ koo bokk mm-hmm. parce ñoom ñaar ñëpp dañ doon wax ne que Yékini seen idole la mm-hmm. bu dee Yékini mës na leen jàppale tamit kon jàppale noo na leen ñoom ñaar ñëpp te mën nañ ne itam bokk nañ fu ñuy rootee parce yaa ngi ne ma ñaanal nga Siteu ñaanal nga Modou loolu amul lu mu a yàq waaw du man su ma doon war instant milliardaire laa nekk. Mm-hmm. ndax làmb jot nañu indil ma un million pour ma war benn mbër. Mm-hmm. Mm-hmm. teg ko fii ak bitel bi yëpp pour ma sot ko suma mbër ma bañ. te ma nee ma am ndam. ndax man xaalis foq ma xaalis jënd ma mu lu ak si lu mu mënti bëri mënti bëri. lu mu métti métti mu dul laa dal ndax loolu la yàlla dogal. mu loolu mooy mbër bi dee sama xol. mooy mbër bi ma njëkk bëgg te bëggantuuma ko. boo ñu bëri sama waajur sax moom lay faral nekkee ça veut kay jeexal na ay wax kon daal Modou daal moom ngay ñaanal ku muy bën a ku muy mën a bëreel. Euh, moom ngay ñaanal. yaakaar naa ne loolu leer na waaye sëñ Mor balaa ñuy tëj partie boobu noonu rek bu ñu demee ba gis Zarko itam digganteem ak Modou Lo ñëpp xam nañ ko. Mhm. mu génn ne moom itam sax bu ko Modou Lo bu ko mayoon chance mu bëre ak moom. Mhm. Euh, te moom itam digganteeg Modou yaakaar naa ñëpp xam nañ ni mu mel euh, bokk nañ ñoom itam ay ñu leen di ñaanal bokk mhm. nañ ñoom itam ñu ñuy fréquenté mu mel ne loolu itam def na polémique bu bëri ci ëttu làmb àdduna moom ku nekk fi ngay gisee mm-hmm. tey bu xaalis taxee ngay wax yéen yi mm-hmm. soo liggéey yaay si am gàcca mm-hmm. parce que ak Zarko def na lu nekk nag i dolf Ahmed Mathias Khadim Gadiaga ñoom ñoom ñëpp Nicolas kon tey benn tàkkusaan wala benn 20 millions wala benn 30 millions bu mu tax nga jaay sa ngor man su ma bëggee Zarko c'est grâce à Modou cofeel bu mu am si Modou moo tax ma ko si moom te moom day mal placé su ma nekkoon moom du ma si combat bi Mm-hmm. parce que Modou Lo xaritam la Siteu xaritam la te mm-hmm. xam naa lu mu xartoo xartoo Siteu mm-hmm. Modou Lo la gën a xartoo ndax bokk na benn la tëdd ak Modou Lo cinq ans wala dix ans bokk ak moom benn écrit contact ak moom te mu su def loolu Siteu kon far bu fekkee yeey na si Modou la war a far su fekkee nag mënut a téye bu faree da koy wane mu maanu ko dégg micro mu bañ si wax mhm. mais man loolu mu ko si balaame mhm. parce que nit ku mhm. mi si a wax mooy ñaan yàlla dugg si élection yi ak bisimilaa maa réew mi génn si alhamdulilah rabbi alamin ndax dimanche ñëw na ba pare. yàggatul dimanche soreetul. Mhm. te dañuy xëccoo te li xëccoo warta ñaaw. Mhm. muy diggante mag Sall. Asafla Amadou Ba Amadou Ba ak Sonko ak Ousmane Sonko. parce que boo xoolee 19 candidats ñoom ñoo fi candidat potentiel ñoom la ñu gën a jox bopp. Mhm. man su ma waxee damay feeñ ndax ku wax feeñ. ndax man patriote laa. Sonko laay àndal. bu ñu voté leen ginaar. dinañ fexe ba ànd ak ginaar gi ba fal ko ba dugal ko biir palais mhm. bu ñu koy rey ñu taxaw aar ko mhm. parce que loolu mooy góor ñu duñu joxe bopp du root laa waaye li ma waxoon rek laa mhm. la élection yi di samedi vingt heures almet bu juróom yomb na almet bu juróom waaw ñu saraxe ko képp kuy patriote dañ koy jënd ñaan seen soxla taal ko ba mu jeex mu jeex tàkk ñu yéene si may fay président Mm, sëñ Mor nag rupture de almet moo nar a am ci réew mi de. waaw almet a nar a manqué. waaw almet moom mënut a ñàkk si élection yi. Mm-hmm. parce que fi ñu jëm warut a sedd. Mm-hmm. daa a tàng te almet safara la. Mm-hmm. te li ma doon wax biddewu jomaay biddewu Sonko fu mu nekkoon te biddewu Amadou Ba mi fa. ñun lu mu metti metti dina war a am set gëléem juróom-ñaari gëléem. Hmm? Euh, euh, mu tudd sax euh, jomaay. su bëggee gagné élection yi. Mhm. foo ñoom set gileem wax naa ko 1200 fois. juróom-ñaari gileem. waaw yaa ngi lay dégg. buñ ko deful barki Cheikhou Tidiane ak koor gi ma koor suñu demee dinañ gis lu mhm. euh, nee na euh, ñëwaatal ñu ci loolu sëñ Mor. dama ne élection yi ñu jëm dimanche. Mhm. ñun patriote bu nu amul set gileem. juróom-ñaari gileem. set gileem yu weex tàll. bu ñu demee dimanche gis lu ñu neexul. mais patriote yi nga xamante nag fi mu ne confiance nañ jàpp nañ ne que victoire bi mat na ba pare. élection yi du élection ay yëg la élection baatin la. ah. baati na koy gagné. baati na koy gagné. bilaay baati na koy gagné. Mhm. du Jean du Paul du Massamba. Mhm. dafa rax sacrifice bu doy waar te waa Amadou Ba ñu génne say sacrifice ki nga xam ne loolu. Mhm. ñun war nañoo caaxaane loolu. tey bu ñu topp mumbaay bi ak mbooloo bu bari bi. ay xale ndaw rek ñoo ñu topp. te mag ñi ñooy dem vote ji te ñu si bari amuñu quarante. loolu bu ñu ko caaxaanee. ñun nag lépp lu mën si baat dañ ko si def. Mm-hmm. waaye xale yu ndaw yi kase kase kase kase ñooy topp Ousmane Sonko. Mm-hmm. ñooy topp Jomaay. Mm-hmm. loolu bu ñu ko fàttee. nan dem vote ji. ngir yàlla war a suuli bu nu ndogoo rek nan tëdd nalaw. bu nu xëjee dem vote ji. bu ñu ko defee incha allah rabi ak sarax yu ñuy wax yàlla mën noo defal ndam waaye bu ñu ko deful bilaay yuuf ne yuuf ñu ko fekkul. mais am na uh, ay kilifa yu génn tamit ne ne ne Ba mooy gañe comme tamit ni ko ni ko xalaatee yéen ci seen boor. waaw déggoo li mu lakk mën naa la Amadou fi mu ne biddéem fu mu ne macha allah kawe na trop. ci élection yi Amadou war a ko gagné Amadou Ba warut a gagné. Mhm. bu ñu waxantee dëgg rek Amadou yi ñu jëm dimanche. Mhm. waaye ñun parti suñu xoolee Amadou Ba dañu gagné sa gëlëm day dara daa mat sax 2 millions wala 2 millions wala 3 mhm. ko war a liggéey. su ko jël réew mi. Ba bu ñu xoolee bu mu jëlaat Sénégal dina met trop. te ñaan ñu ko yàlla nag wax dëgg yàlla. Euh, tey jii ku wax euh, mm. élection itam xam ne buñ ko dëgmalee fitna dina am coow dina am fan yëpp gis nga li nga xamante ne am na ci réew mi am na ci ñu ci ñàkk seen bakkan ci convoi lu ni mel euh, tey jii en tant que koo xamante ne itam bëgg nga réew mi am jàmm tey ban ñaan ngay jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais yi nekk ci réew mi ñoom itam ngir ñu mën a am jàmm ñoom it waaw nañ fexe di sarax rek lu bëree bëri soow ak ndox parce que fi ñu toll nii soow ak ndox mu tañax si élection yi bu bëri ak ndox ak ndox képp koo yaakaar ni war ngay tiit jël mbuus soow wala ndox booy génn nga am sarax ko mhm. mais élection yi incha allah maa ngi dégg ñaan day am coow du mujj fenn du am coow si jàmm ak salaam lay mujj mhm. si jàmm mhm. na nga ngéem sa mbër di yaakaar mooy am ndam wante ñun ki ngéem mooy jomaay président a baax a sarax bu ko deful bu dimanche su ñu ko amul ba dégg yiw barki seexu ci yaan rek te naa ko sonn sarax yi ma su ko deful bu dimanche su ñu ko la Amadou Ba kenn mënu ko tee dégg yiw te man faralu ma Amadou Ba encore une fois. Mhm. Sonko laa faral. Mhm. man xaw ma Diomaye. Mhm. Sonko laa xam. Sonko moo ma joxoon Diomaye kon du ma dugal bopp du rot lamiñ Diomaye laay votel te képp kon maa la fi Diomaye ngay votel incha allahu rabbi mu mel ne eh, sëñ Mor loolu day ñëw day rejoindre li ñuy wax ne ko sarax doole bi nga xamante ne nekk na ci biir sarax nit ñi xamuñu ko. waaw seen moom ñun ñan moomay gànnaaw jullit sarax mën na laa tegal 16 urus Mm-hmm. nga gis ko nii ñu def ay sarax ba nga gis përëm mm-hmm. loolu sarax képp dong moo ko mën mm-hmm. sarax amul lu mënti fànq si ko suuf sarax mën naa fànq lu ne élection yi ñu jëm nag élection sarax la ak sacrifice ak tour deret hmm? barke Seexu Tijaan tour deret rek mu si mën a génne parce que ñoom li ñu tuur si ay deret dafa bari sarax na nag bu ñuul nag bu xonq ñan ñoo ko saraxe waa APR waa APR saraxe nañ nag bu ñuul bu xonq ak bu weex rey nañ gëléem mais ñoom da leen a jar dafa mel ni da leen jaral. waaw ñoom seen gëléem gi ko ñuulee def ko 33 sàmm. mais sëñ Mor fooy jëlee information yi. waaw man dama bokk si ñoom. di xam ñuy def. man tukk nag Amadou mois. toog na ak Nasser raxam bu bokk ndey ak baay. moo moo ko géré lépp. ñu wax si élection yi. Mhm. man tamit duma war. Mhm. barki Seexu Tijaan. 16 bi ne parcelle toog na nii mag Amadou Ba toog na Nasser. Mhm. ñu waxtaan si élection yi. Mhm. mais mënu ma leen a ñaan ndax Sonko moo dee sama xol. te man góor laa. Mhm. ciment laa bi ñu lay tooy. lépp lu ñuy def ñoom ci ay sax mën a koy xam. ndax am na ku ne seen biir ku may def yi. léegi nag ñun loolu pour ñu mën koo fànq. muy foofu ñu pare ñu tamit def sax yi ma wax. mu set gëlëm yi bu ñu ko deful. bu dimanche amul ba dégg mais mais mais mais mais ñoom ñoom niñ def ba ba ba ba ni nga def tey ba ba jot ci Amadou Ba ak ak Nazer comme ni nga ko waxee est-ce que jéem nga itam euh, jot ci kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk biir Pastef ndax itam lii seen njëriñ la. waaw am na ay kilifa yu mag yu ma woo mais dañuy wax rek dinañ la waat. après doon mhm. déggaat. d'accord te man nag du ma forcer kenn. Mhm. dama def li ma war a def wax li ma war a wax. Mhm. te Ousmane Sonko Diomaye bu nekk président intérêt Sénégal yëpp la. te ñu ngi ñaan yàlla suñu borom nanguñu loolu. mais du ma topp si ginnaaw kenn di ko forcer parce que am na kilifa yu mag a mag si biir réew mi yoo xam ni parce que leen boo ko wane ma mm-hmm. mais après diggaatuma leen mm-hmm. dan ma woñu di leen la waat léeg-léeg yàpp du ma leen diggat mais ma du ma si woo kenn mhm. di toog di xaar dimanche nag yàlla baax na mhm. mhm. ay ca bu dimanche rek lu ci munti am dinañ ñëwaat jàkkaarloo ak yow euh, xool ndax sarax yi tamit fu mu mujjee ndax itam lépp loo xamante ne yaakaar naa a euh, a euh, a douze ans ñu ngi dund lu galère gu métti métti suñu doom di dee si gaal yi xam nga manifestation ñaata manifestation ñoo fi am ñaata doomu adama ñu si dee lépp à grâce Macky Sall mooy Amadou Ba mi même teg teg ndax APR APR mooy fa jógee mm-hmm. ñun ñoo sonn mm-hmm. saako ceeb 25000 23000 man bu ñu defoon saako ceeb 1 bu jeexee ma jënd ko. Mm-hmm. am na ñu ko mun. léegi nag ñun bu ko ñeneen mun ko gis nga ñii bis bu ñu falewaatee ñun ñëppay torox. barki xoolee ba Amadou Ba mi ñun ñëppay torox te ñu ngi si tànk yooyu. ñun bi. ñaata ndaw ñoo fi nekk. suñu paay ak suñu maire ñoom ñooy voté te Amadou Ba ñuy voté. ñun jeunesse bi na dem jël suñu carte yi ak suñu quarante ñu dem vote ji mhm. te élection yi mu jëloon suñu bakkan te ku dem vote ji bul njibi nan si bureau de vote di garde ndax dina am ay ju njaaj mënut ñàkk mhm. mais yàlla yàlla defal ñu jàmm baax Mm. ayca sëñ Mor am na solo bu baax a baax euh, sama dernière question sax dama bëggoon wax rek ndax ñaan mën na gagné élection waaye dafa mel ni tënk nga lépp rek ci li nga xamante ne jot nga ko wax ndax sarax mooy ñaan euh, te élection yi comme ni nga ko waxee élection baatin la yaakaar naa ne tënk kon ku gën a pare ci baatin rek mi ngi noonu nga jël sa ndam comme mm. élection baatin la ah élection boo mu dalee am Sénégal ba tey élection si wàllu ñaan si wàllu baatin mm-hmm. élection yi musu am Sénégal yëpp yu mel nii musu fee am ñu ngi soog am élection yu doy waar mooy élection yu jëm dimanche mm-hmm. barki seexu ci Mhm. yu doy war mooy élection yi mais nag yàlla baax na ñu ngi si def lépp lu mën mhm. te lu ñuy wax rek fi ñu jëm ak ko mhm. Sonko ki ko joxe bu bu ñu wooyee sax ñu ko muy set gëléem su ko indee barki Seexu Tijaan Jomaay di nekk président. ayca am na solo ñu bàyyi la nga wax sa dernier mot. su ko defee ñu yëkkati jataay bi ñun moom ñu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, di la ñaanal jàmm bu baax a baax di wax ne que fii suñu kër la euh, yaatal gi ak disponibilité itam ñu ngi lañ ciy sant ndax saa bu ñu la soxlaa dañuy yomb lool sëñ Mor euh, di la ñaanal jàmm rek yow itam ak sa njaboot yépp bàyyi la nga tàggoo waa sant yàlla bu baax di leen gërëm di leen sant bu baax di wax seen bi di sant sama ñaari waajur bu baax a baax mm-hmm. sumay soxna di sant sumay doom di sant sama yaay bu baax a baax mm-hmm. di ñaan waa Sénégal yépp élection yi jëm yàlla na si yàlla jàmm Sonko jël réew mi yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko yàlla def si bàq Cheikh Tidiane mm-hmm. di ñuy waat encore une fois maam ñuy waat Parcelles Assainies foofu laa juddoo foofu laa màggee mm-hmm. mm-hmm. seen baax a baax eh, jaajëfal la yow joxe rendez-vous rek très beneen gox ak keneen koo xam ne dinañ sekk ak moom jotaay waaye mi ngi noonu kon sëñ Mor yaakaar naa dina jàll à bas de l'écran pour yéen ñi nga xamante ne yéen koy teewoo ci wàllu ñaan naa ne lépp lu mu ci wax rek du ci miim réew su ko defee mbokk yi jërë ngeen jëf rek ba beneen